parce que may na ñi nga xamante moo di député yi sànq professeur mu ngi koy wax pour gars yi mën a rectifier li nga xamante moo di le tir pour mu mën a jarok janok ñi nga xamante moo di euh, député assemblée nationale yi est que gars yi waruñu ko corriger avant avant boobu c'est-à-dire que le professeur a parlé en tant qu'universitaire mhm. je moom moom tey dafa mel ni ñëwul sax pour grand parti il a vraiment fait du droit mhm. mais man je fair de la politique je veux vous dire que Ousmane Sonko wutul une porte de sortie c'est qu'il n'a pas de tout Ousmane Sonko ne peut pas tenir un débat contradictoire mënu ko il en a horreur doo mos a gis Ousmane Sonko muy tenir un débat contradictoire avec Baye Mayoro Diop wala avec professeur Thiam wala avec Diop il ne le fera jamais il fait toujours un monologue yéen vous lui avez donné toute l'occasion pendant toute son son son opposition il convoque tous les journalistes c'est lui seul bu pare jël ay bagages am dem et fini bii pas nag ça ne va pas se passer comme ça il va venir à l'Assemblée nationale et il y un débat contradictoire mm, pour moom ñëpp ay nulaar lañ moom kese moo fi jàng moo am xam-xam moo xam li muy wax te discours de politique générale bindu ci une ligne ah nee na pare na de parewul man bu ma la waxee ne parewul rek xamal ne parewul il n'est pas prêt il n'a pas écrit une seule ligne ba comme li ñu si projet xam nga pourquoi il n'a pas écrit une seule ligne parce que le projet n'existe pas il ne doit pas y avoir de déclaration de politique générale il doit y avoir exposé du projet te le projet ça n'existe pas c'est lui qui l'a dit mm-hmm. dina projet bi amul dañ koy bind dina pare fii ak décembre du pare xam nga ce qu'ils vont faire ils vont copier le PSE changer les termes changer les montants changer les références et ils vont l'exposer gis nga boo liiree le livre solution de Ousmane Sonko la partie que je maîtrise le plus mooy la partie fiscalité baat ki yàlla doo fa fekk lu nekkul ci code général des impôts Ousmane Sonko alhamdulilahi rabil alamin comme yàlla dogal na mu nekk ñu ñëw au pouvoir gis nga bu ñëw loolu au pouvoir le professeur Amady Ali Dieng waxoon na ma ko à l'université il nous avait dit ça à l'université en deuxième année en économie politique mu ne si on n'avait pas Ablaye Wade on allait pleurer toute notre vie durant di wax ne bu Ablaye Wade nekkoon président Sénégal mel ni France on l'a actuellement qu'est-ce qu'est-ce qui se passe nous étions en 2003 à l'université de Dakar mais ñun gis nga laajal Baye Mayoro bi ñu bi ñu euh, les élections présidentielles le dimanche la à 20 heures j'ai félicité Bassirou Diomaye fay ba pare nag ñëw julli ñaar raka sant yàlla mm. et les sénégalais vont voir lan la Ousmane Sonko mën ak lan la mën xam nga lan la mën. Hmm. dajale xale yi fi mu nekk di grand théâtre la la la leen di yóbbu léegi léegi nekkatul terrain ak APES <laughs> nekkatul euh, Kër Massar parce que loolu c'est révolu maintenant il va les amener au grand théâtre. pour faire le show. pour faire le show et leur raconter encore la même chose te loolu mënatul nekk. Sénégalais comprendre nañu il a il a trois priorités. il a la jeunesse il a l'emploi il a la citoyenneté et il a la sécurité gis nga quatre piliers yi il est obligé de les satisfaire parce que moom moo ko fi diggee mm. ils peuvent pas trouver un document meilleur que le PSE xam nga tous les records sont appelés à être battus mm. je veux je veux que ñoom Baye Mayoro qu'il batte le record du PSE bàyyi la projet bi pare le amuñu projet dina pare décembre il gouverne avec du pilotage à vue xam nga ce qui est grave mooy il n'y a pas un document de référence sur lequel on s'adosse pour gouverner le Sénégal nañ ma ko wax. actuellement ñu ngi s'adosse. amuñu ñu ngi s'adosse actuellement ci PSE. ah ci PSE pourtant ñu waxoon ne le PSE c'est le plan Sénégal endettement ils sont à combien pour le moment. 1000 milliards. 1150 milliards. 1150 milliards. Edouard Jean-El ñi nga xam ne moom moom mooy représentant du FMI def leen ne le Sénégal est surliquide alors que vous n'avez pas de projet donc payez vos dettes et il leur a demandé il leur a donné injonction de payer d'abord la dette extérieure pas la dette intérieure qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur nos sur nos partenaires bilatéraux mhm. loolu la donc ñun bul wax ne Ousmane Sonko certes une porte de sortie il, il, il sait parfaitement qu'il n'y a pas de porte de sortie c'est un juriste mhm. bu waxee ne il veut il veut constituer je, je, je crois un jury ad hoc qui va représenter le peuple sénégalais, c'est qu'il se trompe lourdement. Et on ne va pas l'accepter.